rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi njabootug lislaam jotaat na ndigal ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér mu yabal fi njaboot gi nga xam ne ku leen gis xam ne mooy ñoom ñooy moom ñu fas yéene yëkkati ay kàddu ci aw làmmiñam ci ndigalam ki ko jiite nag di sëriñ Mamor Mbàkke moom Cheikh Mahamadul Fadal mu ànd ko ak mbooleem ku yëngu ci wàllu daara ci alxuraanul karim ci dëkk bii di Touba ak li ko wër ñu fas yéenee nag wéye ndigal loolu nga xam ne sëriñ bi joxe na ko tam war a doon àllarba di ñeenti fan ci weeru tubaab yemoo ak juróom-ñetti fan ci weeru rajab ndigal loolu moo tax sëriñ Mamor ànd ak bokkam yëpp teew fii nga xamante ni bii moo di kër sëriñ Touba gi jàkkaarloo ak jumaa ji ñu fas ko yéenee jox kàddu gi mu jot li ñu ndigalul sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa lool yi gannaaw bu sëriñ bi nuyoo bokk taalibe yi ak bokk jullit yi sant leen gërëm leen ñaanal leen li ko waral du dara lu may li nu baaxoo def at mu jot te du ko def ci ñaari yoon ci at mi muy weeru muharram ak weeru rajab dajaloo jàng alxuraan fàttali ko yàlla jéggalu ko sàkk ay sarax jàng alxuraan ñaan jàmm wàcc ci réew mi moo tax waxtu wu nekk muy sonn ci di digal di ñu digal ñuy saxoo jàng alxuraan buñ toogee ba am juróom-benn weer yu ne ñu dajewaat jàng alxuraan jéggulu yàlla sàkk sarax baloon tey àq ñaa def ko addi Serigne Touba tey jii nag moom ci boppam moo tànn bis bii nga xam ni moom lañ ko war a jàng muy juróom-ñetti fan ci weeru rajab bi mu tolloog màggalu poroxaan gi nga xam ni ci lañuy ñuy màggale soxna si mu mel ni danoo bëggal kon ñaari tuyaaba ak ñaari pay ndax boo jàngee alxuraan def ko àddee sëriñ Touba def ko àddee soxna jaara def ko it ngir ndigalul ki fi nekkal sëriñ Touba te digle ko yaakaar na la nga ci jël ciy pay kenn du xam na mu toll kon moom itam nu ngi profité di ko sant ci loolu bu baax a baax a baax ndax xam ne ni bëggal nu xéewal ak bëggal nu jàmm moo tax mu dàkk bis boobu waaye ku ne xam ne ni ak jot amu ci waaye nag nee na jàng alxuraan des koo ma ne fu ne ma ne ko nu ne rawatina ñaari bërëb bii nga xam ni lu lépp lu muy def fa la koy tàmbalee muy fee soxna si tëdd ak fii ku baax kii tëdd bu nekkee fii ñu nekk fii nee na bu kenn manqué na ñëpp génn àllarba ji jàng ba ñu si tisbaar ñu yeewi ko ca poroxaan itam waxtaan nañu ko sëñ sëñ Basiiru dana fa nekk moo kilifa ya fa nekk yaakaar naa bu boobaa sax kilifa yu bare bari dañ fa nekk ak seen mbooloo ku fa nekk ak sa mbooloo rek fa nga nekk jërut ngay jóge foofa mën ngaa toog foofa jàng foofa alxuraan def ko addi soxna soxna sa def ko addi sëriñ Touba waaye def ko ngir ndigalul sëriñ bi ci bis boobu nga xam ne yàgg baaxoon nañu jàng alxuraan. kon ndigal laa ngi noonu njàngoom alxuraan lay doon ak njàngoom xasida mu war a doon àllarba le 4 mars yemo ak juróom-ñetti fan ci weeru rajab ñuy xëyee jàng alxuraan. yam laaj yëpp waaye sëriñ bi fàttaliwaat na képp koo xamante ne bii sàkk saraxit da cee war a da cee bokk kon ñi ne ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew lépp lu ci waay man nga def ko te boo ko defee nga tënku ci ndigal li nga xam ne moom la muxadamatul xidma joxe guddi gi it njàngum xasida lay doon sëriñ am Amsatu mu sëriñ son yi bu jiite ko ni ko sëriñ Mamor waxee ca bëccëg bi ñooy àndandoo njàngum alxuraan mi ak njàngum xasida mi ñooy àndandoo ci bëccëg bi ni ko sëriñ Mamor waxee sëriñ Amsatu jiitalee moom mu jiital yi noonu it lañ koy defee ca Poroxaan di ko defe ca Njaareem di ko defee ca Daaru Salaam di ko defe ca Daaru Moxti di ko defee ci daaru goo xam ne sëriñ Tuubaa tax ñu sanc ko waaye di ko defee tey ci bépp barab boo xam ne barab bu jullit la ca borom bëgg lu baax sëriñ baa ngi ciy woo ñëpp kon bisub ñaan yàlla la bisub tuub delluwaat ci borom bisub an wa taxala yàlla musal ñu ci ndog yi ak pakk yi musal ñu ci balaa bi wàcc yàggal fiit sëriñ Tuubaa Cheikh Mahmadul Muntaxa ba naalam yëpp àgg wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu